asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ak fu ngeen mun a nekk dal leen jàmm ci taamulaat fi kitaabi taqdis al ashxaas fi l fikri suufi tey nag ñu ngi ci suñu bindub ñeenteel ci paazu juróomeel borom téere bi xafidahu llahu taala wa raah mu indi benn unwaan bu am solo mi ngi ko tuddee almuxaatabuuna fi hada al kitaab maanaam ñan lay waxat ci biir téere bi loolu lu am solo la pour xam téere bi ñan a ko tax a jóg mu daadi ne almuxaatabuuna fi hada alkitaabi asaasan sinfaani min annaas nee na ñi nga xam ne ñoom lay waxal ci biir téere bi ci nit ñi nee na ñaari xaaj lañ ñaari catégorie lañ alsinfu l awal muslimun gayru mutasawifin yaxrisu ala an yaxtabisa aqidatahu wa cibaadatahu wa suluukahu min alkitaabi wassunna duna taqayyudin bima jaa fi tariqatin min alturuq nee na catégorie gu njëkk gi mooy ab julit boo xam ne moom daa gis ne day dundu diinaam saa muy jokku ci tasawuf saa muy nekk ab sufiyanke te it dafay xiir lool li nga xam ne mooy lislaamam moo xam la ca aju ci aqida la di pas-pas wala ci jaamu yàlla wala ci jikko ak nu ñu yaree bakkan yépp moom nee na daf koy jëlee ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënkuwul ci benn tariqa ci tariqa yi nga xam ne ñoo fi nekk moo xam ndax dafa nekk ci biir association islam yi wala nekkul ci seen biir waaye daal moom tënkuwul ci benn tariqa ci tariqa yi mu ne kooku lim koy njëkk a wax mooy lislaam ku bëgg a liggéey ci biiram war ngaa boole ci yi nga xam ne moom ngay njëkkee mooy at taswiyatul ilmiya di segg boo xam ne ak bale boo xam ne dañ koy balewaat ëtti bii di ëttu ndonoon lislaam comme ni nga xam ne nii noonu la passé woon su ko defee daal di seet lépp loo xam ne bindees na ko ñu càmbar ko te peese ko ci balance su alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci déggi ni mag ñu baax ña la dalee ca saxaaba ya ak taabiina ya ak ña leen topp ba suñu jamono tey jii ñu peese ko ci alquran ak sunna ak déggi ni ñooña te itam nag du ñu am nag benn dénge-dénge nag wala ak jaaxle ci ne bépp xalaat boo xam ne amul dalil amul sukkandikukaay ci alquran ak sunna xalaat boobu faawu ñu fexe ba delloo ko faawu ñu fexe ba soril ko li nga xam ne ni moom mooy ndonoon lislaam te kat mbokk yi jëf ju mel nii am na ñu ci jiitu woon am na ñu ci jiitu woon ñu mel ni ulamaul xadis di boroom xam-xamu xadis yi xam ngeen ne xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am njaxas amoon na ci biir ni ñu koy solooyee ak ni ñu koy nettilee ba lu baree bari ñu dugal ko ci yoo xam ne wérut yee dañ koo sos yee ay israiliyaat la waaye ulamaul xadis di boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo féetoo ci xadis ñu bay ci loolu waar woo xam ne wu ama ama am solo la ñu daal di dëgmal téere xadis yi ak yi nga xam ne moom la ñu soloo ñu daal di ko càmbar daal di ko segg te kat ragaluñ kenn ku leen di yedd wala koo xam ne da leen di sikkal ci jëf jooja nga xam ne nii moom la ñuy jëf ñu daal di segg xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bale ko ba tey jii waxtu woonoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax nangam soo duggee ci reegal yi nga xam ne moom la ulama al xadis teg da nga mën a càmbar xadis boobu ba daal di xam ak wéram ak ñàkk wéram yal na yàlla subhanahu wa taala fayal ñu leen ak képp koo xam ne day bay waar ci lu mel nii noonu ulamaul xadis defee ko itam noonu la ko borom xam-xamu salaf defee mag ña it noona lañ ko defee woon ñi nga xam ne ñooy askanoo ci ahlu sunnati wal jamaa bi nga xamee ne kuréel yi daal dinañ commencé génn di tasaaroo te kat ñu dugal ci biir njàngaleem lislaam loo xam ne bokku ci ay xalaat yoo xam ne daf fi wëtt si waaye bokku si boroom xam-xamu ahlu sunna yi la dalee ca mag ña ñu daal di tàmbali ñoom it nag di taalif ay téere di tontu ñoo ñi nga xam ne ñoo fi indi ay xalaat yoo xam ne xalaat yooya gan la ci lislaam bi maanaa lislaam xamut ko woon lu mel ni kuréel bu ñuy wax aljahmiya askano si jahm ibnu safwaan ak alqadariya ak rafida dégg nga yëpp ay kuréel lañ yoo xam ne boo seetee fu yàgg la ulama yi commencé di leen tontu maanaam fa ñu dalee di leen tontu diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg la naka kuréel yooya feeñ rek loola mu nga dalee sa mag ña sax sa saxaaba ya nga xam ne qadariya bi ñu feeñee ku mel ne abdullah ibni umar radiallahu anhu waxam ji ci saxiixu muslim ñu ngi koy gis ñu wax ne boo demee nga ne ñii kat man ku set wecc laa si ñoom ñoom it ku set wecc lañ si man ba keroog ñuy gëm qadar ñuy gëm dogal yàlla subhanahu wa taala kon tontu ba foofa la dalee ca saxaaba ya ba suñ jamono jii ba léegi ñu ngi leen di tontu kuréel yooyu nga xam ne ay kuréel la yoo xam ne dañoo indi ci biir lislaam ay xalaat kon nag ki nga xam ne dafa bëgg a dund diinaam rek liñ koy njëkk a wax mooy na góor-góorlu wala na xam ne at tasfiyatul ilmiya loolu moom dañ ko war a dugal ci yi nga xam ne moom la ñuy njëkk a yittewoo beneen bi mooy nee na tali hadihi tasfiya al ilmiya at tarbiyatu al amaliya ala hada التراث المصفى تربية أساسها العلم الصحيح والعمل الخالص من الشوائب والأغراض نينا bu ñu noppee nag ci segg googu ak bale googu nga xam ne dañ koy bale téere lislaam yi ak ndono lislaam yi ci xalaat yi nga xam ne dafay wëtti si nekk fa gan nee na ñu daal di jublu nag ci yar nit ki ci jëfee ana lu muy jëfee ndono lii nga xam ne bale nañ ko segg ko seggaat ko ba nga xam ne léegi alhamdulillah ñu daal di fexe nag yar ko si mu di ko jëfee jëfe goo xam ne day tegu ci xam-xam bu wér ak jëf joo xam ne ju sell la ju mucc ci ay njaxas mucc itam si bépp jubluwaay fii nag wax ju am solo borom téere wax na ko fi nee na waxtu woo xamee ne dañoo bëgg ne li fi ne muy li dëppoog alquran ak sunna ak li dëppoog ak alquran ak sunna waxtu woo xamee ne dañ ne dañuy jaxase loolu rek daa di bokk liggéey àndandoo nee na su boobaa lay am problème mooy ndono lu wér li mooy am problème te it waar wiñ bëgg mu àgg waar wa du àgg li ñuy bay itam du mën a set loolu lu am solo la bi maana lii nga xam ne moom mooy ndono lislaam bu ñu ko seggee ba noppi nga xam ne léegi alquran ak sunna la ci dégginu salafu saalix dégginu mag ñu baax ña loola kat bu ñu waxee ne ah waaw jahmiya li ngeen amee man ngeen koy indi garaawul ñun ñëpp ay julit lañ qadariya yéen it li ngeen amee man ngeen koy indi kuréel bu nekk ñu ne leen lañ amee mën nañ koo indi su boobaa loola lu muy jur mooy ne xalaat yooyu ñu indi xalaat yooyu dana mujj not li nga xam ne bay nañ ko ba mu set waar wi nga xam ne bale nañ ko ba mu set xalaat yooyu day mujj mu tilimalaat ko te su boobaa loola day tax xeet wi di dellu gannaaw waaye du jëm kanam mukk te it ndimbalug yàlla gi nga xam ne moom la leen yàlla dig si bu fekkee ne taxawee nañ lislaam taxawee diina borom bi tabaaraka wa taala kon ndimbal loolu duñu si mën a àgg mukk kon loolu lu jar a bàyyi xel la nee na ñaareel bi nag ci ñi nga xam ne ñoom la téere bi di waxaat mooy asinfu thaani muslimun suufi yuhibbu an yakuna nashaatuhu dimna itaari tasawuf إلا أنه يشعر أن هناك قللا وانحرافات في الفكر الصوفي ظهرت انعكاساتها في أخطاء عقدية وتعبدية وسلوكية ila aqri ma qaal nee na catégorie ñaareel bi ñi téere bi di waxat kii moom ab julit la waaye nee na ak tasawuf la bëgg a dund dafa bëgg daal moom mboolem yi muy def mu def ko ci biir kaadaru tasawuf waaye nag moom yëg na ne ci biir tasawuf am na fa ay problème am na fa ay yàqute ci wàllu xalaat ci wàllu pas-pas ci wàllu yar jikko am na fa ay problème yoo xam ne moom yëg na ne problème yooyu kat mujj na yegg ci problème yi pas-pas ak ci biir xeeti jaamu yàlla yi ak ci xeetu yari bakkan yi waaye nag moom nee na tasawuf la bëgg a dund ni muy dundee ci lislaam daal ci biir kaadaru tasawuf la ko bëgg a dundee waaye nag moom reconnaître na ne biir tasawuf mu ngi am ay njuumte yoo xam ne warees na ko réparé waat mu ne ku mel nii téere bi day jóg pour wax ak moom lu tax ndax moom kat am na ak mandute am na xememteefit ci bëgg a defer kon kooku dañ koy yaatal ne ko téere baa ngoog mën nga siy jëriñu fii nag foog ñu def fi taxawu seetlu almurjifuuna yi maay ñi nga xam ne dañuy wax rek wax rek mooy seen liggéey dañuy wax ne téere bi amul dara luy wane ne tasawuf dafa baax dara ci tasawuf waxut ne baax na ah ma ne ñëw leen ci page bi waaye kaay leen ci page numéro 6 ngeen xool ko ndax du ngeen fi fekk ne nit ki mën naa dund ci biir tasawuf waaye na seet la nga xam ne ci biir tasawuf dafa uutee ak ay pas-pas yu wér ci xeetu jaamu yin daf sa am lu am problème na fexe mu defeer ko ci xeetu yar bakkan na fexe mu defeer ko ba dëppale ko alquran ak sunna lii lu leer la loo xam ne borom téere bi junj na ko fii wala leeral na ko fii ci paas bi kon kooka mën naa jëriñu ci téere bi te téere bi tam day wax ak moom ndax boole na ñaari mbir boole na ñaari mbir bu njëkk bi mooy ne maandu na beneen bi mooy bëgg na defer kon kooku faaw ñu jubale téere bi ci moom pour téere bi wax ak moom mu ne looloo tax kon kooku ñu ngi koy jox baxs bu mel nii maanaam recherche bu mel nii ngir mu taxaw moom ci boppam ci cosaan yi nga xam ne mooy cosaani xalaat yi nga xam ne fala yàqute gim gis ci biir tasawuf dare problème yim gis ci biir tasawuf dama koy jox xawaayid yi nga xam ne foofa la jógee lii moo ko sabab su ko defee kat moom mu daa di xam comme daa bëgg a suubu si ak géej mu bëgg a xam nan lay mu mu war a xam nan lay féeyee ci géej googu su ko defee rek mu daa di xam géej gi mu bëgg a suubu ban façon géej la mu ne nag waa jooju nga xam ne ci biir tasawuf lay dund nee na bu amee ak taxawu seetlu nag te bàyyi xelam bu baax a baax dana yëg ne man lépp lu ma toxal ci fikru suuf yi di xalaat bi aju ci mbiru tasawuf nee na maa ngi ko toxalee ci masaadir yi nga xam ne référence yi nga xam ne mooy yëgën a dëggu ci biir tasawuf te jiitu te it mutasawifuun yi ci seen bopp ñoo ko tëral seen bopp toxaleewu ma ko si ñi nga xam ne dañ leen di critiquer ndax ki lay critiquer mën naa am ñàkk maandu nekk ci moom kon dama ko toxalee ci biir téere yi nga xam ne sufiyankee ci seen bopp ñoom ñoo ko bind ma fexe nag ne xalaat yooyu nañ ko gaar ci alquran ak sunna ñu discuter ko la sa dëppoo ak moom ñu jël ko la sa dëppoo ak moom ñu bàyyi ko cheikh bi nee na ama almutaasibu al ama albasira aldayiq al ufuq alladi yaxsibu an alxaqa maxsurun fi nixlatihi wa wijhatihi fa laysa hada albaxth muwajjahan ilayhi fi alasli wal asaas nee na nag ki nga xam ne nag ki nga xam ne moom téere bi jëmut ci moom ki téere bi jëmut ci moom dëgg-dëgg mooy koo xam ne parparloo da koo gumbaal daa nekk nit koo xam ne ku xat la moom daa jàpp ne la mu nekk rek mooy dëgg mais la keneen nekk du dëgg parewul benn yoon pour gëstu lii mu nekk nii lan la parewul benn yoon pour jàngat lii mu nekk nii lan la nee na kooka moom jumale wuñ téere bi ci moom ndax kooka xiwaar ak moom maanaam waxtaan ak moom am du am njëriñ waxtaan ak moom du am njëriñ kon kooku jarul waxtaan ak moom mu ne nag waaye su pare woon itam nag ne ñëw ne day jëriñu ci téere bi ah dañ ko wax ne ko bismillah ñëwal jëriñu bismillah ñun li nga xam ne moom lañ du nangu rek mooy koo xam ne kiritigeem yàq ko tax a jóg wala moom li ko tax a jóg mooy xasaate wala saaga wala di réeral nit ñi wala di seet ñi nga xam ne sax jànguñ di leen wax ay mbir yoo xam ne dara nekkut ca dëgg pour wane ñaaw-ñaaw ci biir téere bi loolu moom du yëfu jullit te it du yëfu intellectuel maanaam nit nit ku jàng ku am xam-xam amee xelam mu sell kooka bu fekkee ne dafa gis loo xam ne nee na lii jaarul yoon te kii ci yoonu xam-xam la jaar ba bind ko nee na su boobaa lay yoon mooy nga fexe bind comme na mu bindee nga leeral comme na mu leerale amma comme li ñuy gis tey comme ni ma ko waxee woon keroog ci suñ jamono ji yi nekk ci média yi di wax nekk ci journaux yi di wax nekk ci mbedd mi di wax nekk ci internet bi di wax guddi ak bëccëg te mënuloo bind dara dara dara dara luy wane ne yow téere bi mën nga koy critiquer mënuloo wane dara dara dara loolu nag wax dëgg yàlla nag dafa ñaaw daal dafa ñaaw maanaam ñi koy def dañoo war a am kersa sax ñi koy def war nañoo am kersa si jëf yooyu nga xam ne moom la ñuy jëf amma jëfandikoo métatu firawna nag moom comme li ma doon wax la ma waxoon keroog rek daruni aqtul Moussa firawna ak Moussa seen débat ba ba ko Moussa noté rek fa mu daal di daanu ji mooy daruni aqtul Moussa xaar leen ma rey ko loolu nag méthode la boo xam ne moom la ñuy gis nii fi mu nekk waaw loola nag wax dëgg yàlla bu fekkee ne ka koy jëfee moom day wane ne ca mag ña lay askanoo ah loola moom du doon donol mag ña mag ñi de liñ fi nekkee woon mooy bind ay téere bu xalaat génnee ku sa daakoorut doo doon jël nit ñi dégg nga di leen xirtal ci loo xam ne nii jaarut yoon loo xam ne baaxul di leen xirtal ci yu mel noonu déedéet mag ña dañ daan bind téere moo tax boo seetee kutubu rudood yi mu ngi ci biir mag ñi mu ngi ci biir mag ñi dégg nga waaye amul leneen luñ doon def lu mooy loolu kon nag loolu nañ si bàyyi xel bu baax kon ki nga xam ne saaga ak xaste ak def lu ñaaw loolu mooy liggéeyam cheikh bi nee na kooku moom dañuy wéeru ji rek ci borom bi tabaraka wa taala fas yéene sàkku tuyaabo muñ lor gi nga xam ne moom la ñuy lor te it wax ko ne ko salaamun aleykum laa nabtaxil jaahiliin nit koo xam ne dafa réer moom la gën mooy buy wax ak yow nga bañ ko wuyu imaam Shafii nee na dañ ko wax ne ko qaalu sakatta وقد قوسمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته